السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ñoo ngi sant Cheikh Mahamadou Fadil ci taxawaay bi ak leeral yi di gën a sant bu baax ci dégg digal gi mu digal xutba bi barkeb xutba bi dégg gi rek ci suñuy nopp doy nanu daja des nag moom mu euh, euh, des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu mën naa bañ a gudd loolu di moo rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu sàmmanteeg moom baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmanteeg suñu kem kàttan góorgóorlu itam bu baax suñu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci suñu jëflente sunu jëflante yépp ñu ko xam ne góorgóorlu ci bu baax ci li mu gën a jëfe di jëfe jikko yu tàdd wan gannaaw itam safaan diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu léppi tey ak ëllëg dëkk sax dakk ci wéete sunu borom ci lépp sax dakk

sant taalibe yépp sant bokk jullit yi ci taxawaay bi nga xam ne waxtu wu nekk ña nga ca muy taxaw temm ci diine ji taxaw temm ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe du dara lu

loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe góorgóorlu bu baax ci li ñu feen di muy jaamu yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jikk moom ci lañ mooy suñu njëriñal tey ak ëllëg mooy suñu biir suñu njëriñal biir ak bitti ci suñu mucc mucc nekk muccuk tey nekk ci su muccuk ëllëg nekk kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax suñ yitte jépp nañ ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mi ngi ci jublu yàlla ne suñ yitte jépp ne yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex jure yi nga xam ne suñu borom defal na may def may na ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mooy mooy jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma boroomu kon lépp lu mën a doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu borom donc ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab suñuy nas gën nu koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci des lépp ne kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi bokki taalibe yépp bokki jullit yépp kilifa yi yépp ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp ndax taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekk nekkal fi yàlla ni ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek la ci lépp nag mu am ci rafet njort am ci xel mu dal gën cee gën a am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ne taxawaay yitte ji yépp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallaahu amiin amiin